femmes sénégalais yu mobiliser wu te heureusement loolu amul parce que si loolu amoon ça serait un précédent dangereux pour notre pays beneen mbir bu ma jàpp ne ne respecté wuñ état de droit dégg ngeen la président si làmmiñam mu ne leen man ak sama premier ministre dañoo tëju ba minuit di xool nan la ñuy defee mbirum justice maanaam am na ay mouvement yu ñu war a def biir justice man ak sama premier ministre dañoo tëju di ko xool ba pare teg si ne magistra yi ay fonctionnaire lañu comme ñëpp déedéet magistrat yi dañ bokk benn pouvoir bu ñu tuddee le pouvoir judiciaire le pouvoir judiciaire bu ñu nekk dañu dañu def si ànd ak ay garantie statutaire tey le statut du magistrat sax dafa am loi bu ko teg dafa am ay principe yoo war a respecter sooy war a affecté magistrat et cetera donc soo ñëwee ne ba premier ministre man ak moom ñoo tëju te premier ministre bokkul conseil supérieur de la magistrature yoonam nekkul ci mbirum yooyu pour xool nan la ñuy defee mouvement loolu tamit lu doy waar la rawatina garaaw la fekk que nga ne am na magistrat yoo xamante ne ne peuple bi rafetlu nañ seen liggéey mais ban peuple moo rafetlu seen liggéey C'est le peuple de l'Internet. C'est le peuple des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un sondage wala benn vote bu ñu def pour xam ndax di juge bi wala magistrat bi moo gën bi wala kii lu mu def est-ce que peuple bi mun na apprécier le travail de la justice le travail de la justice des professionnels de la justice ñoo koy apprécier ñoom lu ñu mën a apprécier mooy le travail des impôts et domaines en tant qu'inspecteur des impôts et domaines te foofu y a beaucoup de choses et à dire te dégg leen si donc le fait ñu mën a dem dugg ci justice yëkkati la barrière de la séparation donte ay affectation mën na am mais dafa am fu mu war a jaar am yu ñu war a respecter nga toog ne diw mii de jàpp naa ne ne peuple bi dina ko bëgg na ko peuple bi ban juge la bëgg ak bu mu bëggul peuple bi lan la xam ci liggéeyu juge nga def li la neex parce que loolu lay bëgg a tekki bëgg dugal clientélisme dans la magistrature dama jàpp na ne ne les magistrats le monde de la justice suñu yeggee foofu dinañu wane seen bopp parce que nag le respect de la séparation des pouvoirs l'indépendance des magistrats magistrats yi dañ ko war a xeex sénégalais yi dañ ko war a xeex parce que justice boobu ñoom ñuy ñuy wëlbati di xool nu mu baaxee suba ñoom mun nañ fa dem keneen mën na fa dem justice dafa war a tëddee njaxanaay donc ñu bëggee xool nan lañu koy defee jël kii dugal kële jël kële dugal kële damay appeler aux populations ñu vigilance loolu parce que du ñu bëgg justice boo xamante ne clientélisme moo fay dox te soxlawuñu aussi justice boo xamante ne yaay tànn say nit méngale ko ak tànn peuple boo xam ne yëgul tinul loolu bëggoon naa ñu leeral ko moo tax ma ne leen li ma dégg mu wax gisuma respect bi nga xamante ne war na am ci état de droit te loolu doon na loo xamante ne li graaw la ci président de la république parce que doole boo mënti am état de droit moo la ko may sinon Bassirou Diomaye fay nga tudd man Thierno Bocoum laa tudd keneen keneen leneen la tudd li tax tey nga mën a wax wala nga mën maa wàcce yoon bi wala nga mën a jël ay décret yu ma mënul jël wala nga mën a jël ay décision conseil des ministres c'est parce que dafa am loi bu la ko may dafa am état de droit bu la ko may donc foofu dama bëggoon leeral ko bu baax a baax a baax a baax beneen bu si topp wax naa leen ko léegi mooy manque de transparence xam nga dama dégg président de la république damay jaaxle sax parce que ñun dañuy woo ci débat d'idée mais gisaguñu ay idée ban idée ngeen mën ngeen gis ba ñu toogee ba léegi defuñu DPG defuñu plan d'action gouvernemental président su toogee loo ko wax day survolé soo ko ne emploi mun a woy agriculture bi ak renforcer le secteur privé point far ngay jaar waxul te ñu ngi ñu woo ci débat d'idée ñu yàkkamti nañ débat d'idée bi de mais gisaguñu fi ay mais ñun suñu leen di tontu si ay idée lañ leen di tontu depuis le début ni ñu doon opposé woo ñoom ñun duñ ko opposé woo c'est pas parce que bëgguñu ko mais xamuñu ko donc lu ma bëgg a wax si loolu mooy manque de transparence boo xamante ne ne bu doy waar ak populisme yow soo waxee engrais wàññi naa ko la moo la teree wax nit ñi ne leen engrais daa wàññeeku fële à l'international fëgg sa dënn def say kii bind say kii fu ne wut say nit ñu koy jàllale waaw engrais bi daf ko kii lii la jaroon lan moo la teree wax yow fi ngay jëndee daa wàññeeku waxoo ko ba pare nag mu teg si ne d'ailleurs wàññeeku na ren waaye chaque année dina wàññeeku waaye yow da am da am engrais bay wàññi chaque année tu es tributaire du marché international pour l'instant en tout cas tu es suba suba suba suba su eh, nawet nawet bii di ñëw su yokkee da ngay obligé yokk fi xanaa nga subventionné soo subventionné wul day yokku loolu doon problème bu mag nan ngay mën a yokkee mburu wàññee mburu te waxoon ne wàññi nañ pois bi soo wàññee poids bi kay mënatul jar lu mu doon jar pourquoi leeraloo loolu pourquoi soo dugalee xaalis ne joxe naa diw tant de milliards dugal naa ko fii waa lan moo la tere préciser que ne yow da ngaa leba leba leb ba xalangu fu mu toll nii ba leb ay eurobond eurobond yooyu ñu leb man déglu naa entretien bi du début à la fin journaliste yi fa nekkoon génne nañ seen gémmiñ eurobond bi deux fois tontuwu si ba léegi ñoom waxuñu lam moo tax ñu jëli ay eurobond ñu tax 450 milliards yooyu mu doon ay eurobond ba léegi waxuñu si ana transparence lan moo mën a tax ñu mën a leb pour le peuple ba pare du leeral peuple bi lii ñu leb fii lañ koy dugal beneen bu ci topp mooy ñoom boobu ba léegi lan la ñuy def ñu ngi def ay chamboulement dañu naan recettes yi yokku na lii yokk na changé nañu fii wàññi nañ ministère yi jëlee nañ alal bi def nañ ay arrêté pour pour pour annuler crédit bi def nañ lii et cetera loi dafa ne loi dafa ne muy loi organique portant loi des finances dafa ne su dee da nga chambouler bi budgétaire mooy loi de finances initiale loi de l'année soo chambouler équilibre budgétaire bi da ngay def loi de finance rectificative parce que li ngay dépenser di dugal di génne chambouler lépp mais dañ ko war a autoriser l' assemblée nationale moo ko war a autoriser ana seen loi de finances rectificative pourquoi ñoom ñu mën a chambouler lépp di dérouler di jël alal di dugal fii te yóbbu wuñ ko assemblée nationale assemblée nationale autoriser leen ko loolu mooy loi de finances rectificative moo tax ban transparence moo am transparence la dama lay wax ñaar la nga ko mën a xamee bu gën a institutionnel mooy nga dem assemblée nationale leeral mbir yi wala ñoom ñu def fi seen liggéey leeral mbir yi parce que ñoom ñoo représenter la peuple waaye tamit mën nga toog jàkkaarloo askan bi comme ni mu ko defee neena lu mu lu tax mu woo leen c'était pour di leeral lan la fa leeral mais nga expliquer nit ñi lii fii nga ko dugal xaalis bi ngay plus de cent mille milliards nga nga leb ko fan nga ko dugal agriculture bi ne nga 20 milliards nga si yokk 20 milliards dafa ma ne nga tànk ndox rek si siwo bi leneen yëpp fan la dugg pourquoi duñ leen expliquer loolu pourquoi sénégalais yi duñ leen wax amuñu droit xam fan la ñu dugal milliards yooyu moo tax loi de finances rectificative boobu gisu leen ko boobu ba léegi pourquoi dañ leen koy laaj fan la toll parce que c'est obligatoire ndax président de la république bu ne fekkul ay fonds politique dama koy laaj ndax jël na ay décret d'avance ndax parce que dégg naa muy wax waxu opération am na foog naa ko mu opéré su ma juumul ne am na satisfaction si loolu su dee xaalisu askan bi la ndax dafa jël décret d'avance décret d'avance mooy nga dem laaj xaalis si kees ba ñu jox na si ay conditionnalités nag qui son cumulatives fa mu am urgence ak nécessité absolue décret d'avance danga koy jël ba pare soog ko vali faire valider par l'Assemblée nationale à travers une loi de finances rectificative dañ koy laaj ndax jël na décret d'avance ndax xaalis bu muy fonctionner ci ay fonds yu wuteeg sa leeram ndax dafa jël décret d'avance ou pas yooyu daf ko waroon leeral c'est ça la transparence beneen bu ci gën a doy waar nag mooy la question